Euh, waaw damay rafetlu euh, question bi euh, maa ngi tudd Samba maa ngi dëkk Ñomre foofu laa juddoo foofu laa defee sumay humanité yëpp politique teel nañ ci dugg en 2014 nekk nañu mille vingt 2022 aussi nekkaat nañu candidat li ñu dugal ci politique nag mooy dëkkoon ci gox bu nga xam ne. il y avait plus de dix habitants gox boo xam ne amoon am na plus de quarante-huit villages amoon ay jafe-jafe ay manquements yu bëri am fa ñu manqué woon ay infrastructures sociales de base amoon ay jafe-jafe mel ne bokkuñu woon ci réew mi ñu nekkoon ay ndaw nag mobiliser wu euh, amoon benn mouvement ma nekkoon ci bopp bi muy mouvement pour la renaissance de Niomre bi yàlla dogalee ñu taxawal loolu kuréel boobu lu bëri xeex nañ ko fa lu bari jële nañ ko fa lu bari indi nañ ko fa yàlla dogal na li ëppoon si liñ doon xeex nag am nañ ci genn cause parce que ñoom daa mën a ndox tey macha allah dem nañ ba euh, kër yëpp am nañ ndox te la de bi mu ngi nekkoon à 7 kilomètres de ñoom rek conduite bi euh, daan jox ndox waa Dakar plus de cinquante kilomètres. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yàlla dogal na am nañ ci ndam tey donc. bokkoon na ci lu taxoon ñu doon def politique ni ñu gisee politique nag ñu bëri ni ñu ko gisee euh, bokkul parce que dañoo toll foo xam ne boo dee politique yaay nit ku bon yaay nit koo xam ne say wax du rafet euh, yu ñaaw euh, yooyu yooyu yooyu bëri ci politique bi day dem ba day dem ba tax yow sax dootoo ci dootoo ci dootoo ci sawar mm-hmm. da ngay bëgg xalaat leneen parce que li ñu bëgg mooy service suñu réew bëgg ñu nekk ay nit yoo xam ne dañu naan lan lañu suñu réew defal mais ñun dañuy xalaat lan la ñu defal suñu réew loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën a ñor euh, moom la ñu gën a bëgg waaw.